ne lëndëm na et cetera mais tu as besoin des gens yoo xam ne ils n'ont pas de personnalité des gens des hommes lisses yoo xam ne des séides yoo xam ne et des sycophantes yoo xam ne vraiment tu les utilises à ta guise genre mooy façonnier rek. waaw ñu ne homme d'affaires mais ñi nga boo amee fulla personnalité mais le président de la république euh, d'alors là Macky Sall soxlawu la. c'est pourquoi il s'est débarrassé de toutes ces euh, ce monde là. ces gens qui avaient une forte personnalité et qui se laissaient pas faire. donc boo gisee alentour vraiment c'est des gens de peu de valeur des ministres abès comme on dit en latin. des écornifleurs yoo xam ne vraiment ñoom disparition du président Macky Sall jàpp nga ne loolu euh, ak justement li ko euh, Doro Gueye tudd man na am benn impact justement bon je crois que bon les gens se font ça. oui euh, bon peut-être y a Maître Omar Youm qui a dit que y a amul benn valeur juridique justement. ci par rapport peut-être que ce sera difficile. quelqu'un qui avait bénéficié euh, d'une immunité présidentielle. c'est bon quand même que les gens signent peut-être que xëy na le fait rechercher ce sera sur la masse. Mm-hmm. n'est-ce pas, euh, de gens qui vont signer. Mm -hmm. Bon, c'est bon que d'en arriver peut-être à 1 million ou à 2 millions de personnes, etc. Mais je crois que je m'imagine mal Euh, Macron. Mhm. di di extrader euh, nu mu ci. Macky Sall wala du Maroc kooku nag. Euh, kenn xalaat quoi. du du mën a nag mhm. peut-être nag on ne jamais parce que xam nga y un dossier niveau de la CPI. qui est là tout ça peut-être ça peut prospérer on ne jamais. waaw mais ah. c'est bon effectivement. parce que c'est de dénoncer. le mal que ce monsieur là. est-ce que mën nañu ko euh, toppee haute parce que. j'ai écouté Maître Ciré justement parler que dañu ko war a toppee haute mais absolument absolument bon am na loo xam ne mën nañ ko topp. parce que xam nga balaa mu nekk président il a déclaré ici que amoon na huit milliards. huit milliards oui. yooyu. les fonds taïwanais. waaw <laughs> fonds taïwanais mais huit milliards yooyu am na yoo xam ne sax euh, nee na euh, maître président maître Abdoulaye Wade. moo ko may mais maître Abdoulaye Wade toog na fi publiquement ne li muy wax tu dëgg. may moo ko way qu'il a menti. oui nest pas mais ba léegi moom tontuwul ci loolu. donc loolu c'est bien avant que mu nekk président de la République bien avant que muy bénéficier immunité présidentielle boobu mun nañ ko toppee ci loolu parce que affaire deniers publics la aussi. d'accord ah n'est-ce pas bon mais waxtuma la loolu. Mhm. mais pour un président de la République le fait même de se délier de son serment mais c'est une haute trahison. parce que mooy lan mooy engagement nga bañ ko respecter. say promesse waxuma sax promesse sax mais say waaw tu as prêté serment de faire ceci de te conformer à, à, à la loi nangam nangam et mais yooyu yëpp nga teppi ko et cetera mais on peut te poursuivre effectivement parce que les gens disent que c'est pas défini bien peut-être que on n'a pas défini de manière détaillée ouais, comme par exemple euh, si code pénal bi ne infraction bi lii ak lii moo koy mais je crois que sur le principe mm-hmm. on doit tous être d'accord qu'un président de la République qui s'est délié de son serment mm-hmm. il a trahi ses engagements et donc on peut le poursuivre pour haute trahison ok absolument euh, justement par rapport ak les rapports parce que j'ai écouté maître Moussa Diop li yàggul dara mu boobu nga xam ne mun na ko maintenant ci par rapport à la déclassification de certains rapports lu mel ni EJO est-ce que dañ ci war a gaaw aussi. mais dañ ci war a gaaw parce que nit ñi dañoo bëgg am lu leer quoi. parce que faut pas laisser les populations dans les spectatives. dans la parce que loolu mooy indi ay spéculation. loolu mooy indi yenn information yi quoi. vraiment dañ ci war a gaaw vraiment et ça c'est une demande populaire nit ñi dañ ci war a gaaw parce que sinon les gens ne comprennent pas parce que bon xam nga rek am na des mauvais esprits yoo xam ne ñu ngi ne wooye peut-être que euh, ñi fi nekk danoo négocier ak ñi fi nekkoon et effectivement on <laughs> de fortifier cette idée-là donc et d'essayer euh, le doute dans l'esprit des Sénégalais donc il faut mu gaaw ci loolu te euh, nit ñi nañu comprendre c'est pas le président ni le premier ministre ñooy toppatoo loolu quoi parce que ñoom la il y l'intérieur est là pour yenn dossiers yi le ministre de la justice est là pour yenn dossiers et cetera donc vraiment nañ ci gaaw nañ ci gaaw ñi ñi ñu ngi commencé di xat yi waaw léegi les gens vont en profiter là pour ne xoolal ñii la ñuy waxoon defuñu ci dara et cetera parce que ils veulent mettre en mal. Oui. Euh, les populations avec les nouvelles autorités. Ouais. et ça une entreprise de déstabilisation boo xam ne c' est c' fait à dessein. ñoom oui. ils n'ont qu'à attention parce que li ma leen wax nee naa leen y' a des éléments résiduels qui sont toujours au palais y' a des éléments résiduels qui sont à la primature y' a des éléments résiduels qui sont dans niveau de certaines directions générales niveau même de des des patrons d'industrie et mu ngi ci lu leer la am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi woy seen ndigalu ñu fi nekkoon et donc vraiment euh, qu'il fasse attention lu euh, képp koo xam ne laale nga ak ancien régime bi rek. je crois que la prudence mooy ñu simple la teg la. génne la daal voilà je crois que parce que entreprise bi du entreprise bi boo euh, nationale rek la c'est une entreprise internationale. Oui. xam nga tubaab yi wax nañu et ça je ne cesse de le dire que. y a deux façons de reconquérir. oui euh, bon euh, parce que ñoom gis nañ ko euh, Afrique bi mu ngi leen di rëcc. Mm-hmm. surtout français yi. Oui. que l' Afrique occidentale euh, kii. Euh, voilà effectivement son son son carré mm-hmm. mu ngi koy rëcc. Mm-hmm. E si ñëw na. Mali Burkina Niger et cetera rëcc na la Sénégal bi aussi ñu ngi crane mu rëcc la léegi pour reconquérir ces pays souverainistes là mooy ñett ñooñu euh, de l'AES plus le Sénégal parce que le Sénégal est considéré comme un pays souverainiste c'est par rapport au discours de ces ñu ne léegi y a deux façons benn bi le général le contre moo ko wax nee na au besoin même par la force par les forces armées et waaw ah, xeexal leen et cetera te Macky Sall c' est le président de la République ce fut il fut le président de la République du il a certains éléments d' stratégique yoo xam ne est ce que du ko baaxee tubaab pour bés boo xam ne ñu ngi jublu ci loolu mm. ñu ñëw vraiment def ko ak facilité et ensuite maintenant la deuxième rencontre bi ak Macron moo amal mu sama xel moom day toujours ci xel tey si Macky Sall rek quoi bon façon qui est disons une soft comme oh, disent les Anglais. mooy ñoom ñu ne léegi nañu créer soulèvement populaire dans ce pays là. oui donc soulèvement populaire parce que y' a une technique de créer le soulèvement yooyu Sénégal nit ñi ci entreprise boobu la nekk ni cest que pour tàngal xolu population bi pour wëlbati seen ande ak seen jàppale. Hmm. ak par rapport aux nouvelles autorités là pour léegi ñu commencé nag di def yenn manifestation et cetera quoi ñi ñuy def li yëpp. si stratégie boobu sur le bokk. donc vraiment ils n'ont qu'à faire attention. et vraiment encore l' état Euh, am na yoo xam ne bul bàyyi mu prospérer quoi. parce que j'ai entendu le premier ministre euh, Ousmane Sonko dire que bon buñ ko diffamer buñ ko saaga c'est pas important nañ def focus ci li nga non c'est important. je suis au regret de le dire monsieur le premier ministre. c'est important non cest à que peut-être que moom mun na accepter xëy à titre personnel. mais les Sénégalais n'accepteront jamais que seen président de la République wala seen premier ministre. ku nekk à tout bout de champ da ngay jël sa micro da toog sa kanamu télé di leen saaga il n'en est même pas question parce que aussi ñoom dañ leen dëkk non seulement euh, di son de faire des réalisations oui, pratiques mm. des infrastructures autosuffisance alimentaire une bonne santé publique et cetera une bonne éducation publique mais ils ont également pour mission vraiment ils pour mission ils ont une mission axiologique mooy lan mooy c'est-à-dire il doit qui fondent le socle de cette société donc pour que société bi bañ a yàqu mhm. pour que ñu on a am ay citoyens yoo xam ne ay citoyens yiw lañu duñu nekk fi di saagante duñu nekk fi di toroxal jàmbur duñu nekk fi di weer jàmbur duñu nekk fi di saaga sëriñ si et cetera c'est dans leur rôle et te yooyu ci seen discours lañ koy gisee. mais également ci programme yoo xam ne ñu ngi koy tëral à partir du bas âge à partir de kii et ak aussi di euh, daara yi et cetera ñu impliqué leen ci biir et cetera parce que valeur yu bëri alxuraan mu mu ngi koy mu ngi koy valeur yu bëri aussi nu mu tudd ci l' église catholique chrétienne mu ngi koy l' mu ngi koy mu ngi koy prôné et cetera donc yooyu yëpp la seen ci loolu la aussi waaw du question tabax tal yi euh, ñi lekk ba suuf parce que aussi fekk ni di ngay liggéey bu rafet te nga am situation yoo xam ne ils sont pas conscients de liggéey leen liggéeyal mais ñoom ñooy ndi wëlbati yàq ko est-ce que loolu day rejoindre les propos de Waly Diouf Bodiang qui disait que dañoo am opposant milliardaire ah, quand il l'avait dit ça avait, ça avait de suite beaucoup de débats les gens en parlaient mais est-ce que déclaration également est-ce que même la wax Bodian li muy wax c'est xam na ko xam na ko bu baax cest à nga jàkkaarloo ñoo xam ne ñoo la ëpp xaalis ñoo la ëpp xaalis a parce que xam nga ñële régime bële il n'hésitait pas à puiser dans les caisses de l'État pour di xeex seen adversaire mais ñi mënuñu ko parce que ñii dañ ne jub jubal jubanti donc ñoom du ñoom ñooy jël ci keesu État ne ñu ngi koy xeexee seen opposant donc ci lan la ñuy sukkandiku seen xaalisu bopp rek mais noonu Absolument rien. Donc ils, seront, ils vont faire face à des gens qui ils ont volé l'argent de l'État, ils ont volé l'argent du peuple, n'est-ce pas Ils ont sucé le sang du, peuple, n'est-ce pas Ils sont abreuvés de l'armée de ce peuple-là. Donc ils ont construit maintenant un trésor de guerre extraordinaire. léegi moom la ñuy jël léegi di ko xeexee ñi. Mhm. c'est pourquoi il doit faire attention. mais il a demandé à ce que même ñu je ne comprends mais. moo tax ñu ñu dañuy penser que je suis un va-t-en-guerre je ne suis pas un va cest à que je suis euh, logique dans ma mooy lan mais après sax dañ war a tas c'est un pays euh, à c'est un ci ñëw parce que. waaw ah, d'accord ci ñëw. ok danañ ci ñëw. mais hmm. mais yow dañu war a jàpp waa APR yëpp nëbbu leen kaso gi war a jàpp waa APR non du ñu war a du question war a jàpp waa APR. parce que APR bu deful dara waroo ko jàpp. parce que bu dugg ñoom ci liñ doon def et cetera. Hmm. nga xam ni boo takki bracelet rek wala nga gis kii ñu jàppale déedéet dañuy jàpp koo xam ne woon na ni nag. def y a de fortes présomptions de culpabilité. ci yow koo xam ne vraiment rapport yi épinglé nañu ah ba mu am poursuite judiciaire parce que ministre de de la justice dégg nga ko. c'est que dafa wax waxu kilifa. il a été il y a beaucoup de subtilité dans son discours. waay waay mais li muy wax leer na. waay mooy ñooñu ñëpp effectivement dana war a di mujjee euh, tribunal la ñu àtte leen. waay waaw mais ce que Sénégalais yi nag leen métti mooy ñu gis leen bon ñuy wax. ñu def point ñu wax na gëmuñu dara gëmuñu dara. Comme okay. de là, moi, je les euh, euh, d'organiser une manifestation à la place de l'obélisque. <laughs> hein? Non, cest à comme je dirais, oui. il y a fait œil pour œil, quelquefois, pour dent. xam nga gis nga affaire euh, baa jaxate boobu baa jaxate boobu waaw mais noonu naa leen hmm. gëmuñu dara te duñu duñu dem fenn ko donc léegi ñi nga xam ni dama leen di dégg ñuy xataraayu mais je suis bas jaxase et cetera non il suffit pas d'être bas jaxase il s'agit il suffit effectivement de répéter les mêmes propos que bas jaxase. en tout waxuñu ko de. ah <laughs> waxuñu non doo dégg ñu wax ko. ok eh, je suis commissaire de police. Eh, pour wax la ni si fi nekkoon. ah jeexuñu ce sont les non jeexuñu au contraire même parce qu'ils avaient fait un stock boo xam ne. mais à la santé aussi un commissaire. waaw c'était euh,

Bon, c'est-à-dire que euh, encore faut-il que vraiment euh, ce soit une information avérée. Oui. Bon. En tout cas, c'est Walf Walf Quotidien ñoo ko joxe. Walf am nañu indice de fiabilité ak de crédibilité boo effectivement war nañu mën a yaakaar ci li ñuy wax mais encore une fois moi c'est une précaution oratoire si effectivement c'est avéré mais c'est à fait normal parce que les pays n'ont pas d'amis ils ont des intérêts te Sénégal féministe ça suscite un intérêt extraordinaire mm-hmm. donc Macron bu demee ba gis ni que li mu bëggoon amu ko mooy xëy na mu am Amadou Ba ñu nekk président mais gis ne ko mais quand non euh, qui n'a pas de mel se contente de grive comme on dit en français donc léegi amul pexe léegi nee na ñii il faut nga collaborer ak ñoom donc Sénégal gii collaborer ñoom am de bonnes relations moo ma gënal euh, Macky Sall bi quoi parce que amaluma benn njëriñ fi toll fii lu dul quatre pays yi nga xam ni moom moo ko dirigé mm. le Maroc aussi pareil donc ñoom seen intérêt dëkk la ñuy seet seetu ñu vraiment ils sont pas dans le sentimentalisme vraiment am na jamono yoo xam ne il faut dépasser l'angélisme politique mm. vraiment c'est la réelle politique qui donc li ñuy wax effectivement euh, bon jàpp naa ni moom mooy yoon sax quoi parce que aussi du ñu nangu amul benn président boo xam ne def nga ko ci ñi ko jiitu nga xam ne da nga dem bitim réew di bëgg a déstabiliser fi mm-hmm. te moom si entre si loolu la dugg c'est à ça il faut mettre non parce que euh, disons que sinon. oui dinañ dem pousser léegi population seen bopp. ñoom ñu jël en charge maintenant di régler yenn mbir yi quoi. là c'est le commissaire qui parle hein. Ah quand même. oui c'est le commissaire qui parle. le <laughs> commissaire quand même. waaw waaw vertu d'esprit <laughs> ah, naturellement je ne suis pas républicain. mais quand il s'agit de dire la vérité. quand il s'agit de défendre les intérêts de l'État. quand il s'agit de protéger. Hmm. nos premières personnalités muy le président de la République ak a pas le sentiment quoi. ok euh, tey dañu jot benn xibaar ñu ne doomu Mansour Faye dañu ko tegee loxoog vingt cinq millions de francs CFA ci otoom bi ko takk dari jàppee ñu négocier mu am lu leen jox ñu bàyyi ko ñu dem finalement moom Mansour Faye dafa déposer plainte ba ñaari takk der yi fa nekkoon jot nañ leen daal di relever là aussi c' est des qui reviennent à chaque fois. doomu ministre dégg nañ problème nag yi mu jëndoon xaalis beeg yi ni mel problème aussi nag nga waaw oh, mais c'est-à-dire que <laughs> xam nga ñoo xam ne aujourd'hui dana war a nekk di wuyu tribunal di ñëw di dem seen kër <laughs> mais au lieu de ça. bon on les a laissés dans la nature. on les a laissés dans la nature maintenant diggante doom bi ak euh, alkaati yi vraiment je je ne connais pas les tenants et les aboutissants. fekk ils ont